bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima salaatan wa salaam wa barakatan taquudu biha li shaykhil qadim القائل سلالي إلى الجنة باح توسعت وكلي ومالي شان حام مصصص mbokki asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu noo ngi leen di nuyu nuyob jullit ak mbokkum jullitam di leen nuyu nuyob taalibe ak mbokkum taalibeem di ñaanal cheikh mohammadul muntaqa sunu borom subhanahu wa la yagal ko fi dolli kàttanam defal ko ak wér ba mu mottali mbooleem ay yéeneem ak ay naalam ci liggéeyal xaadimu rasul di siyaare bu baax mbooleem ñi nga xam ne ñooy topp jataay yi di beral siyaar sëriñ Mouhamadou Ngom ñing ci liggéey bu am solo bi nga xam ne mi ngi koy def joyal ko ci cheikhul xadim mbokk yi seen mbokkum taalibe cheikh Ndiaye Gana fas yéene dikkat ak yenn ci lenn ci jataay yi sëriñ bi bismillahi rahmaani sëriñ mohammadul mustafa ak sëriñ mohammadul fadilu radiyallahu taala anhuma sëriñ tuuba qaada lahu allahumma axtaara lahu daa masa santaane ab liggéey ñu xëy ànd caag taalibe ya ba ñu ñëwee sëriñ tuuba qaada lahu allahumma axtaara lahu woo leen laaj leen fu ngeen demoon ñu wax ko ko fekk na seeni loxo futtu sëriñ bi na leen ku la musal ci lii waroo ko def ab nawle mooy moroom siiw na sëriñ tuuba xaadaluhu laaxu maxtaaraluhu mas naa laaj xam ngeen ku mën a ab noonam ñu ne ko déedéet mbàkke sëriñ tuuba xaadaluhu laaxu maxtaaraluhu wax ne ab muñkat ak moroomub cër siiw na sëriñ mbirina silla radiyallahu taala anhu mas naa am téere bu muy laaj sëriñ tuuba xaadalahu allahumma xtaaralahu mu mujj ne ko masamba noonee la ko sëriñ tuuba xaadalahu allahumma xtaaralahu daan woowe teema laa jox lu gën téere bi mu ne ko waaw sëriñ bi ne ko booy jàpp na ngay jàppe faatixa booy raxas say loxo na ngay wax bismillahi rahmaani rahim booy gàllax nga wax alhamdulillahi rabbil alamin booy farax am na ñuy wax sarax nga wax arrahman rahim raxas sa kanam nga wax maliki yawmi diin loxo yi moom raxasoon nga ko ca bismillahi rahmani rahim kon da ngay jàll rekk raxas ko te doo wax dara boy masa sa bopp nga wax iyyaka na'budu ca dem nga dikk gi nga wax wa iyaaka nastain booy masa say nopp nga wax ihdina siraatal mustaqim booy raxas sa tànk nga wax siraatal lasiina an'amta alayhim ba ca des nga wax xayrim maxduubi alayhim wala daliin sëriñ tuuba xaadaloho laahumma taaraloho ne ko boo ko defee ni ndox mi di wàcce ni la bàkkaar yi di wàcce te ku set ci bàkkaar tàbbi àjjana siiw na sëriñ xamsatu jaxate radiyallahu taala anhu nee na daa am bis ma dégg kàddug sëriñ tuuba qaadalahu allahumma xtaaralahu ma daldi jóg jël ab dogam maanaam awyet ak kaalaam ñëw ci sëriñ bi fekk ko mu toog jublu penku di jàng alxuraan mën yoo ne ko daa mel ni dama dégg kàddu guy woote sëriñ Tuuba qaadaloxo laaxu maxtaaraloxo ne ko nun la maanaam nun ñii la satu jigéenil àjjana yi ñoo fi ñëwoon ma doon leen ganale bëggoon nga mos ca bernde ya lool daldi koy jox kafe siiw na sëriñ alxaaji mbakke yàlla na sunu boroom subhanahu wa taala guddal aw fanam defal ko ak wér ak kàttan nee na maa ngi sant yàlla lool ndax barkeelu naa ci lu bokk ca kafe googee tey ñaanal fan wu gudd ki ma ko jox ak wér wallahu aalam mas na am ñu ñëw ci sëriñ Tuuba qaadalahu laaxu maxtaaralahu di ko jàmbat bekkoor sëriñ tuuba qaadalahu laaxu maxtaaralahu ne nu ngeen def ak mawaaxibu kenn waxul dara sëriñ tuuba qaadalahu laaxu maxtaaralahu ne bu ci taalibe yépp saxoon dara du jeex bu ci taalibe yépp saxoon dara du jeex siiw na wallahu alam mbokk yi ñoo ngi leen di jox dig daje ëllëg incha allah ak seen mbokkum taalibe cheikh njaay gànna ci jataay yi sëriñ tuuba xaadalahu laahu maxtaralahu mbokk yi nañu xam ne sëriñ tuuba kenn la amul ab ñaareel te dendul ak kenn ci jëf ji nga xam ne jëfal na ko borom bi subhanahu wa taala liggéey bi nga xam ne liggéeyal na ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ba dem jotee moom képp moo dem ba ñëw jotee moom képp moo ñëw bi séddale joxe moom képp moo séddale moo tax sëriñ tuuba qaadalahu llahu maxtaaralahu di wax ne nafaani wa biya yenn faxul wara sunu boroom jariñ na ma te ci man la mbindeef yi di jariñoo kon nañu dollee gëm Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon na ne gëm ak wóolu ak yaakaar sëriñ Touba lañu koy def gëm ak wóolu ak yaakaar Serigne Touba lañu koy def lu coow li bari bari lu wax ci bari bari nañu gëm Serigne Touba wóolu Serigne Touba yaakaar sëriñ Touba doyloo Serigne Touba jébbal sëriñ Touba sunu lépp bàyyi kook sunu àdduna ak sunu àllaaxira ndax Serigne Touba wax na ne malakani duniya wa oxra samadu sunu boroom mi nga xam ne moom la ñépp jublu ci ay aajoom mooma moom loo àdduna moom loo ma àllaaxira ataytani ljamia duna salabin wali taquudu sula waxtatala bi wér na lool wallahu aalam